tey nag ñu ñëw fii si Malika seet si un champion euh, koo xamante ni duñ ko présenté kenn mu ne koo xamante ni bay Fall la mbër ak diine te ñu ngi soo ko jël bay Fall muy ki nga xamante ni moom mooy Bébé ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy ci koor gi bien vrai que nag ñu ngi ci koor parce que koor ñëpp xam nañ ni wax dëgg yàlla weer bu sell la macha allah ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy làmb ak ci koor gi dama ko jox moom mu nuyoo mbër maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay sama jigéen sama xarit di nuyu waa Sénégal euh, ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant sunu ñaari waajur ah di ñaanal sunu ndey fa mu tëdd yàlla na ko sama boroom xare àjjana moog yaayam fa fekk ak yaayoo ko fa fekk yëpp di wax onge billah bismillah inna waliyu yàlla onsi billa bisimilah inna waliwu yàlla onsi billa bisimilah inna waliwu yàlla jërëjëfe sëriñ Abdul Karim Mbàkke naaru maam aw fay yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér sama naar ba ci ndindi yàlla na fi yàgg te ànd ak wér maa ngi nuyu waa senegal gépp di ñaan yàlla na jàmm rek tuuru ci senegal ba koor coronavirus bi yóbbu ko ci xaj. Hmm. nuyoo bi am na solo moom Bébé Saloum mais te ñu fekk la ci koor. Mhm. Baye Fall koor gi nu noo koy dundee. koor gi dañ koy dundee ni ko gaa yi dundee rek. dañ koy sellal rek donta ay Baay Faal lañ tamit. ñu dëxëñu rek suñu biir diwaan di jéem ci ñi nga xam ne yàlla dogal na ñoom ñu woor. ñuy jëflanteeg ñoom lu baax rek di jéem leen a jox ndogu ci li suñu doole yam. ba sama borom matal bis bi rek ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. mais yow moom daal koor gi moom. non man duma ma woor Baay Faal laa suñuy fay jëfi woor moom am naa ngor ak maandu ci quoi. Mm-hmm. man maam si matériel maam si Aram Fall la waaw. nee kon nan nga koy dundee ci kër gi ñu euh, mais nekk euh, kese yaa doo nga yaadul kii ah woor. déedéet du man kese ma dul woor du man kese et mm, ku ko yëg rek def ko. comme ci kër gi la ah. waaw kër gi waaw. Mm. sama jabar day woor sama soxna day woor samay doom dañuy woor samay xarit dañuy woor sama rakku jabar sa ñaar day woor ñëpp dañuy woor mais man Baay Faal laa dama koy dund dëgg. pur et dur waaw. Mm-hmm. mais koor xam nga li ci euh, diina wax. Mm-hmm. Mm-hmm. mais tey yow euh, bien vrai que ni Baye Fall nga mais ñëpp xam nañ ni jullit nga euh, koor mm, weer promotion bi ngay dégg da ngay dégg nit ñu naan koor de weer promotion la weeru kii la loo ci def rek yàlla da koy nangu euh, weer promotion boobu yow Bébé Saloum lan nga ko déggee. ah comme danoo fekk mu sut ñu xalima fekk ñi ñu sut xalima wax ko. Mm-hmm. dañ koy gëm rek. waaye ñu ci bëgg promo. nañ ko xaar jël ko man promo bi mu bëgg muy Mame Seram Fall képp. Mm-hmm. waaw sama pour moom moom ci maam Seeraam Fall la ma koy dëkkee dund dama ko xaar at ba at comme gars yi at ba at lañ koy xaar pour fàttaliku yàlla. Mm-hmm. ñoom yeex nañoo fàttaliku yàlla de atum yàlla nga dog ci benn weer nga tànn ko pour fàttaliku yàlla. Mm-hmm. or saa su nekk la war jaam bi. julli daa am lu muy sàbbal am lu muy joxoñ mu bëri nga koy këpp këppal xamuñ li liñ leen ci sant ak li war may ak yeeg yelleef yi lan kii bi war nañu ak mm, waaw loolu ñoom ñi koy suivre xëy na ñoom ñu ngi ko xam man Baye Fall gi laay suivre. mais kon doo doo julli tamit. non Baye Fall Baye Fall laa aussi. mais Baye Fall du julli du waaw mais lu diine santaane. muy xol bu laab maa ngi ci Seydina Mohamed lañ ma tuddee. mais yàllaa ma nattu mooy alalu sëñ Abdul Karim di matérielu maam Seeraam Fall. Mhm. su bëggoon ma bokk feneen it dina ma fa boole mais ci waa kër sëñ Tuubaa la ma ma ci sant nag bay pàkkar mhm. di njabootu maam Seeraam Fall am. Mhm. te ci dara aussi. mais parfois tey doo am problème kon jàq ji kii sa doom yi ñoom ñëpp dem di julli yow nga toog sama doom is ce que ne sama taaw bu góor mi ngi daara. man mii di wax ak yow damaa jaar daara. mais baay Fall rien à voir ak jàng Baye Fall jikko ju rafet ju ñuy def ci la makaarimul axlaa lañu Abdul Karim Mbacke Fall lu dundloo mm-hmm. muy laabal suñu xol bi ndax nit a ngi julli nekk matu sawara nit a ngi woor nekk matu sawara mm-hmm. ñun dañuy jéem a sellal suñuy jë suñ digganteeg suñu moroom waadama doomu ñu dëkkal mm-hmm. rafetal ko lool rek dox jëm ci loolu njullite gi ëpp parce que dem ci jumaa ji julli ba pare bu ma génnee seet yéene laat safaan su amee dara ma ñaane ko ko loolu moog ñàkk jullee yam wala nga julli ne ci biir ku julli gay compter sa bénéfice su suba su ma ko naree def nag no tombanteeg yàlla nattu ma may ab Baay Faal. ba nekk daara boobu yaa ngi Baay Faal nga. déedéet bi ma jébbaloo ci Abdul Karim Mbacke Fallilou laa ko doon. ok mais mës ngaa woor ko. budul koor weeru koor damay woor jour yooyu damay neex ma sabaal suñu borom. waaw mais ci biir weeru koor bi duma ma xaar ba weeru koor rek ma ci profito donte war na mhm. damay dund dund nu Baay Faal bi ñu sant muy jéem a togg ay ndogu jox ko jaam ñi woor mhm. ak yéene leen ko lool mhm. ñàkk ko mu xam ne ñoo ko ñàkk jox ko jàmm ñu xew loo ko ci loolu rek laay dox. waaw mais donte kon bu dul koor comme Baye Fall nga doo woor. waaw Baye Fall yi sax nag Baye yi dañoo am ndam ci koor parce que bañ na ko ba ñaar fukki wan euh, fanu koor moom koo wax mu ne Baye yee ko moom. Baye Fall mu jógee lu baax de su fa de. cey bu gaa yi xamul li ci Baye déggoo ku tedd ku sell ki li mu wax. sëñ Sidi Muxtaar. déggoo li mu wax borom beeg mektaar bi nee na Baay Faal bu dëggal te sellal mu ko gënal jëmmam ji kooku nga xam ne ñëpp xam nañu mooy Sëñ Tuubaa mooy borom beeg mektaar bi borom Masaalikul Jinaan kon Baay Faal fa mu jógee doy na waar de. jërut ñu ciy toj parce que day jur ay yeneen. mais dañ koy tënk ci ñun ay Baay Faal lañ rek. Uh-huh, uh-huh. kum neex nag gàppee ñu nu mu ko neexee bàyyi noog yàlla mi soob li li li war a am. ndax liñ bëgg rek lan xam di ko doxal suñu borom mooy aji kii soob. joxe ndogu amul ren nan nga préparé kon pour def ndox parce que euh, coronavirus bi am. waaw nan ngay defee actuellement na ci dëkk biir kër yëpp saxaar fi mu toll nii luñ ci dolli mu tàkk. Mhm. suñ ko toggul di ko taajit am ñuñ koy yëkkati dem di leen ko jox nax yeyoo nañ ko. waaw ci kàttanu yàlla ak mbaaxam waaw. Mm-hmm. Ah, Bébé Saloum bien vrai que wax nga ko comme que Baye Fall nga doo julli doo woor mais que ah, am na ay ah, jàng nga daara kon ku jàng daara war naa sori. non mun ngaa jàng mu daara mun nga fa dem sax nekk fa di bay daara tarbiya dafa am. Mm-hmm. wulli sax xel mi ak sa jikko ji ba safaan maanaam doo yéene doomu aadama safaan xanaa xamul loolu mooy dëgg-dëgg julli xool doomu aadama bi gisoo ci moom benn ñaawteef. bañ ko xoolee benn gàkk bañ a xeeb kenn bi nga ñëwee fii ñaata nit nga fi fekk. yow laay laaj. bari macha allah. kenn dëkku fi ñëpp yàlla dogal na xëy na jikko ju laab ju ma leen war a tax. dëgg dun ma daw benn boor ñoom it noonu laa mel ci seeni kër. aw ma ak ñoom sens interdit man dama koy dund. may mbër mi sama kër tëjuwut sama buntu nekk tëjuwut ndax nag bis bi may bëri ji dong laay mbër mi bu ma ci jógee baay faal bi laa waaw. ñu nekk ci koor. est-ce que jullit euh, war naa xaar ba koor ñëw mu soog a jaamu yàlla. waaw ah, mooy li ma la wax sànq jullit bu xaaree ba weeru koor ba jot muy doog a fàttaliku yàlla. yàlla aka mat maalikul mulku buuri buur yi ak a mat. laa am na ci lool day euh, des koy misaal am na ci lool lamiñ du ko laal. ku loolu doy na ko def rek man moom diingatuma ci kenn la muy def. waaye li ma ne moom ku ma ci dingat yaa xam. Ah, mais jàng daara te jaar wax nga daara tarbiya daara da am daara yoo xam dangay dem jàngi alxuraan ñëw. Ah, am daara man dem naa ci ñaari daara yëpp daara Sëñ Abdou Karim ku ci nekk yaa ngi ci daara tarbiya mm-hmm. jàng naa léegi taxoon ñëw bu kokki sax dem naa fa kokki njaga Issa Dieye mm-hmm. waaw. sartu julli xam nga ko. Mm-hmm. xam naa ko. waaye comme newuma ci site boobu noonu di ci dox moom dama koy bàyyi ngi siy dox rek. <laughs> waane moom mun a weesu nga fekk nit ci biir këram ni ko nii ngay doxale damay bàyyi ñooña di ca dox. man ci Baye Fall gi nga may woo nu Baye Fall di doxee rek ma wuyu la ci. mais bi ma saalu bi may surxa surxoon nag yaa ngi may woon naar ci guuxum soom de lu leer la ci la ci loo woo la ci loo miin. Euh, mais bi saalu. Hmm. <laughs> ñaata rakk la. déggoo ma de. mais waa am naa droit la. dara Karim amul lu ma ci xamut mais loo ma laajul ci Baye Fall da koy yàq du ma ci waxtaan. parce que loolu mooy jël pépp jël péfet benn taat du war ñaari mbaam naa bàyyee waa waa julli gi liñ moom te yaakaar ko nga bàyyi maak sama Baye Fall gi mënu maa la jën sama Baye Fall di lijjanti jullitu jàmbur gi waaw su ma ko xamee du ma ko wax man daal ci li ma xam te di ko dox mu gëm ko muy Baye Fall gi loo ma ci waxtaane nu Baye di doxee nan la ko sañee nan la ko sëñ bi diglee dañ ci dox mooy ni ma jàpp ni moom la sëñ bi doxalee rafetal ko sellal ko dox jëm ci ku tooñ nga jéggal ko ànd ak ku jikkoom soof loo am bokk bokk ak jaamu yàlla yi bul wor bul bedd ko ñàkk dundee ñàkk muñ dëkkal jubal leeral kalimatul ak képp mm-hmm. te dama ta dama bëgg nga tari ma benn saar mooy xul wallaahu ahad xul wallaahu ahad allahu samad lam yulit walam yulat walam yakun lahu kufuwan ahad sa waay. Basirou tey nag tey am naa ki ñaaw quoi waaw wuy ma euh, comme que dañoo nekk si koor ba léegi wax dëgg yàlla macha allah Bébé Saloum pour yéen ñuy suivre saare làmb Lamb. Wassare oh. TV xam naa di ngeen maree tey ba sonn di ngeen ne yéene naa ko ko mais Bébé Saloum man muy moom ma wax dafa kii dafa xoj. dégg ngeen lu mu wax ci li nga xam xamante ne ndeysaan moom mooy koor gi ndax am nañ ci droit ndax kenn ku nekk la nga nekk dañ la ciy respecté kenn ku nekk la nga nekk da koy gëm te moom loolu la gëm wax dëgg yàlla ñun amuñu dara luñ ciy wax ah mais Bébé Saloum gannaaw bañ jógee foofu ñu ñëw tuuti ci làmb parce que sax ñu ñëw jóge foofu te duñ dugg tuuti ci làmb Bébé Saloum xam nga tey duñ fi nekk naan kan mooy Bébé Saloum Bébé Saloum fu mu juddoo parce que àdduna wër nga këpp xam nañ kan mooy Bébé Saloum Bébé Saloum nga def ñaata combat 23 combats 17 hmm. victoires loo wax ni 6 défaites 9 top 5 mais pourtant yow say défaites bariwul noonu ah. non mais nit ñi ñoo la yab rek. làmbaam ku moom am nday ku moom nday rek. sa 17 euh, victoire xam est-ce que daanu ay sorko sorko yooyu noonu mooy booy kii yi noonu. top 5 bi daal Garga Mbossé ngi ca biir. noo fi. noo top ca biir. Rakusos. doo dugg ci net bi xoolaat ko bu la réeree. Garga Mbossé. top 5 laa ko yóbbu. allahu sa lañ laa ko dóor ñoddi ko dàggoor mu dem ba koy mim weññee di ko biiw. Garga Mbossé après. waaw Gambien ca biir la bokk mën Diop de ca biir la bokk Birahim de ca biir la bokk Khadim Gadiaga ca biir la bokk. Modou ca biir la bokk. Jatli ca biir la bokk ñoom ñëpp ñu ngi ci biir top 5 yi. te ay ay cuune daanuñu ma nag ay champion laa daan ay champion ma daan. guy gi moo ma daan. Mhm. limal. guy Balde moo ma daan. limal. Rëg Rëg moo ma daan. limal. L'an 2000 moo ma daan. limal. Franc moo ma daan. Oh. mais yow ay champion rek ñii kii rek. ay champion ñoo ma daan ay champion laa daan. Ah, cuune daanu ma de mais làmb moo baaxoo ku ma mu am ndey ak ku ma ndey. mooy li fi xew yaa mu ko gën a xam tànn sa bu la neex. tànn ko. li yi doxal rek moo tax làmb di wane ginnaaw di dem di wéy fi mu toll nii keroog damaa dekki lamb sama combat ak Franc donte daanu naa. dama ko fekk mu nelaw ma cuuj ko mu ne wadet. mais nag sa combat ak nag moom bisaalu nag comme mooy loolu comme. di ba nga jëlee Franc gars lu ñu wax woo ñu la ci ruq. bu déggoo li ma la wax. sama jabar d'accordut samay xarit d'accorduñ sama waa Ikiri d'accorduñ waaye man maa d'accord. mais lu tax euh, pindub teen la ku ñëw ca pind ba nga yem. man xam nga woy wi këpp gaal de su ko way ci tefes. Mm-hmm. te lu nit mën a moom mën a moom mën a moom bàyyi fi néegub jàmbur. Mm-hmm. sa yéene ak sa xalaat nga am ak samay xarit ak sama jabar waaye sama bëgg-bëgg sama yëg yàgg maa ko am te la ma ko jëlloo xëy na mënu ma ni kii lii moo ma ko jëlloo parce que bokkuloon ci sama bilan de carrière de un. déedéet. bi ci topp mooy. làmb la egg nañ ca. sans borom may na ko ndam ma di ko ko yéene. mais boo ko jël déedéet ndax war naa ko jël. bu jël ta tàggoowoo kenn kay mooy xamul loo ko jël la billaahi wallaahi tallaahi li may wax nii jël naa combat bi dem équilibre ba ñëpp ni ma delloo avance bi man leen sama ngor sama jom mayu ma bu ma dalee jël avance ba léegi ma di ko delloo te li tax ma jël cause cause bii la ok te xamoon lu si mun naa am mun naa am mais nag yooyu yëpp garaawul ndax jamaïcain daaw jéeg la ko bëggoon ak daaw ren doog a ñëw muy doog tëggu. ah jamaïcain ko bëggoon. alxuraan amul bis bu ma ci waxul pour faran. mais nag mënumaa bëree ñi ma bëreel ñëpp. mujjee bëre ak jat li dem ñu jël faran. benn de un mooy. làmbi léegi. dafa am baat. CNG damay dal seen kaw ba sama làmb ji paase dañ ma mettre en mal. su mu nee tëll zëm yi karma seen ndigal la. comme ñoo fa indi zemi li ñu leen wax loolu la ñuy def. Mhm. ci samay supporters sax dama faa waroon def pour ja génne sama public. Mhm. mais dañ ma koy xañ. Mhm. ngir lan dëgg ji ma leen di wax te yàlla moo bëgg dëgg ba ni xulun ak wala kaana mu ran wax leen dëgg donte dee taxaw na. dëgg. ji may wax waa CNG muy dañoo war a dem ba nga juddoogul ba léegi CNG ngi fi ba nga ñëwee fii ba léegi CNG ngi fi. Macky Sall lu tax gars yi ne Macky campagne bi di ñëw du wate. ñëpp mën cee xar seen tànk tubéy muy réewu démocrate lañ ne kii day dem ñu xool keneen mën kii dem ñu xool lu keneen mën mu ñu jàppee alin Alioune Sarr rek a mën a téye làmb ji sama réew yërëm naa leen c'est pitié xale yu am compétence ñu ngi fi. ku ci mel ni ñoom Kéba Kanté mi ko bëgg a yor pourquoi pas Tyson nag bom euh, kii Yékini dama leen a mere woon ndekete ci heure laa leen doon mere xam nga Tyson mooy sama idole moom rek laa bëgg bëgguma keneen keneen bër mu ne bëgg naa la damay sóob. Tyson bi ko bombardier daane laa dugg ci làmb Bombardier akay sama xarit mais chaque jour ma ne ko yaa daan sama mag dinaa la daan ngir mot ndaw Tyson mooy sama mag di sama xarit di sama idole ca Saalum ni ma ko nekkee di euh, ca rakk ya fa ne muy ku mel ni ay double Tyson ay Siteu ñu topp sama ginnaaw nekk su may rakk noonu laa toppee ci ginnaaw moom Tyson nekk rakam ma dégg leen CNG te dégguma benn seen benn réaction. ndekete ñoom danoo dugg gisul lu ñu xam génn dem toog te waxuñu ni dem nañ toog. ma defoon dañ faa ne ni cell ba nañ bu yàgg la waaj indi woon maçon bi ni ko béton yi dañ ko yéegal kii dañ koy yéegal muy ree mu ne ko looy ree mu ne ko bàyyi bu yàgg te yëgu ko ñoom leen dal ndeke bàyyi nañ bu yàgg te yëgu ma ko. Mm-hmm. li <laughs> ngay soog am information. may doog am information bari ki démb tey xëy Jóob yéegi ne ko wax ma di ko dégg ci dekki làmb. Mm-hmm. ndax dañoo def geste bu rafet muy mbër yi Gris Bordeaux suñu président euh, leader en activité. Euh, dekki làmb ak suñu mag yi ñoom Modou Lo ñoom Tapha Tine ñoom ñoom euh, Boy ñaa ñoom Reug Reug gaa yëpp ñu dem yóbbu benn don pour jàppale ko askan wi ndax yeyoo nañ ko ndax guddi yi foo ay ne loo am génne ko tasaare ko ci askan wi te xam ne suñu réew moo soxla mbas mi metti na te mbas nañu tari nañ nag li ñu tee eggu suuf bëriwul Macky Sall na dolli ndimbal gi te lim dig jaam ñi na ko gaaw génnee muy ñetti kilo ceeb yeeg litre diwlin bi na ko jox jaam ñi. mais Bébé Saloum da nga def loo musul def. Mhm. gars yi xeer def naa fa lii naa fa yi xeer quoi gars yi na def dafa ñàkk ñànki noonu la ko olof di waxee mais Bébé Saloum Franc war laa euh, dama leen la waruma daan. non dama lay def question réponse Franc war laa daan. ok. kon moo tax ngay ngay dal waa parcelle quoi. mburu parcelle da ngay jékki-jékki merloo mburu parcelle mu génnaat xam nga ñëw na jox leen ma bébé Saloum. ban mbëru parcelle laa merloo parcelle dama leen a def luñ mun ta fayu Franc ma yóbbu ma top 5 di. nag garga dañ koo indi mu ne ci digg ndëndëm. temps yooyu lay fecc naar kaay jaay ma poon ma feesal tribune ba ba mu fees dell daf ko gisee ferme Assane Ndiaye di jël cuub di ko takk di ko jaay ay morceaux fas yi ñuy jaay comme si yi jour boobu làmb ja am na fa. maire yi ne woon sama cumukaay dama doon pàccax ndox mi pour ñu àndu ma def ko gisee fermé moo tëggoon làmb ja mel na bawal production ma duma ko ba génne ko làng gi arbitre ni nii ma xàjj leen ni ko kaay ma duma ko yóbbu ko top cinq xaadim gajaga ndeysaan fu mu toll di ma gërëm ndax nag yàgg na parcelle mosu faa doon président écrit hmm. ma yóbbu ko top cinq def ko président écrit hmm. Ibrahim deux ba ma ko daanee ba léegi sax est-ce que taxawut parcelle sax fi toll nii ñetti ndam yu rëy yoo xam ne yëpp ay top 5 la am biir parcelle. kon dese kenn dese wu ma fa woon ndax ka ma fa dese woon mooy waaju mag ji. moom diw doomu diw ak diw. l'enfant chéri de parcelle. non. Ah. xam nga comme notre roi des moo Modou Lo kon nga. waaw moo ma fa dese woon. ñu indi benn leet na. Mhm. mu jaamaarloog man. am ndam ci man. waaye ba tey desel nañ may bor. Modou Lo de wax dëgg yàlla nag ah Bébé Saloum nekkul ne waa wasaare bi ak deux caméra yi xam ne ñoom ñoom amet toog fii Modou Lo nga xam te ni. gis sama bët bii bu fekkee nekkul ci roi bi barke alxuraan ma dem liggéey sëñ Abdou Karim Touba Bogo su fekkee gëw ma ni dinaa daan moo doog ñeneen ma bàyyi ndax capable naa bëri bi am naa taay bi am naa âge bi. te li leen wër ñoom su ma waroon duñ dégg dañ may xajal làmb ji. liyaar laay wax ak ñoom wax la dégg la laaj. jàppale waaw. ok. bi leen wër jàpp ji leen jàppale billaahi wallaahi bu ñu ko xaajoon jox ma man leen génn leen làmb ji te dañ may déglu di ma di dégg li ma leen di wax di ko jëfee. Hmm. ku ma ci dajeel ci mbër yi. du fit du doole. du du du lenn. Hmm. làmb ji ci ñi ci daq bëre laa bokk xaw ma nag premier bi laa xaw ma deux bi xaw ma trois bi mais barke alxuraan ci laa ci laa bokk. mais kon ñaan bébé Saloum day monte fit bokkoo ci. man waaw mu juddoo Saloum ca xorom sak tàngoor wa yaroo caaro ca ñu tuddee bànd ya <laughs> ragal nekkul ci man su ma ragaloon xolal duñ ma dëpp micro may jàkkaarloog waa Sénégal président de la république sax dama koy wax ay dëgg yu ànd ak i teggin. mais bébé Saloum. te mun maa xëy manote ci léegi yow. nga mm. ragalu ma loolu man awuma lu may ragal.